c'est que ñun ku ci nekk danga toog sa ruq rek. Hmm. yaakaar ne tu te suffis à toi-même. c'est euh, su ko defee bu ñu dañuy faible trop kuñ ci état bi ku ci bëgg rëq ndigam da koy rëq ndigam. Hmm. kenn du ci mën dara. Hmm. bi ñu Maodo wax na ko sànq bi ñu tëjee Sud FM mais mi ngi wax Sidy Lamine Niass même keroog bi ma demee commissariat central parce que dem naa fa mais. tout la presse sénégale s'est retrouvée là-bas. c'est clair patron de presse. Mm-hmm. reporter. ñëpp stagiaire technicien. Mm-hmm. animateur ñëpp ñëw taxaw. Mm-hmm. bu ñu ñëwee taxaw état bi gis ñëpp ne c'est une famille ñoo ñëw taxaw. dañuy reculer mais xoolal moment yi lii di xew Nicolas bu ñu bi ñu jàppee Pape mais boo demee ñaari ñetti journaliste nga fay fekk ah. man def naa commissariat central euh, dix heures ba dix neuf heures ci ci guddi ma jóge fa. mais bu ma génnee. waa Walfadjri laa fa fekk. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne dañoo ñëw pour information. Mm-hmm. te bés euh, Guy Marius Sagna mi wax na ko Walfadjri ñëpp mer. Mm-hmm. dafa wax ne presse bi ñu nekkuñu benn. c'est mu ne yéen ñii ñëpp taxaw teg seen i seeni ak seen i seen i ay vues moo leen fi andi. mais pas pour soutenir Walfadjri. et quand il a dit. toute la presse était fâchée mais bu ñu xoolantee su ay bët. mais li mu wax mooy li am. mooy li wax mooy tey jii Nicolas on va vers de vers de grands événements mais waxuma sax. Euh, nekk benn pour ne pas donner euh, may suñuy adversaire ñu dumañu hmm. mais dafa toll moment yoo xam ne man je verrai par exemple ñu ne le président de la République Macky Sall. Hmm. day jóge ci nguur gi hmm. ñu ne tey jii Sud FM lay dalal ak Walfadjri pour un entretien gis nga loolu day am ci yeneen réew dafa war a am suñu réew mi wala ñu ne wala oui wala ñu ne Ousmane Sonko mi candidat à l'élection présidentielle euh, euh, Walfadjri bëgg na ko jël euh, Sud bëgg na ko jël RFM mm-hmm. bëgg na ko jël keneen bëgg na ko jël mm-hmm. mu ne mënu ko defal ñëpp en même temps su ko defalee kenn mu bañ mm-hmm. Walfadjri ak Sud FM ànd na ñun dañ koy dalal ñu seet fu ñu neex ñu dalal ko fa mu nekk un entretien Emmanuel Macron mais day def entretien nga gis. journaliste journaliste TF1 toog. bu keneen toog bu keneen toog ñu def ko. mais da koy def périodiquement sax tous les 15 jours. ou une fois le mois ah, dafa dafa am solo man je me dis tey bu un président de la République mu tudd Macky Sall mu tudd keneen toogoon. Hmm. gis benn demande pour un entretien mu gis ci suuf ñu signé fa. Hmm. les rajo Walf FM Sud FM la télévision Walfadjri et cetera. Hmm. moo koy ci lay gën a saware def ko. su ko Walfadjri kese demandé. cette mutualisation des forces la man dama wax nga ko sànq nous des concurrents. mënuñu defandoo lépp ensemble mais y a des moments yoo xam ne si on reste pas ensemble. Mm. on risque de disparaître te kenn du ci mën dara. Mm. et laal et loolu élection yi jëm am na am na ci solo. Mm. ñëpp dañuy wax ne. s'il y a eu alternance en 2000. c'est parce que y avait Sud FM. et Walf FM. mais mais y avait que deux radios. tey jii nii. man dama gëm ne mën nañ jëm ci élection boo xam ne mën nañu waxtaan suñu biir ne. yaa a zone du Sénégal Sud FM am na fa présence bu Walfadjri amul. Mhm. y a zone du Sénégal Walfadjri am na fa présence bu Sud FM amul. Mhm. est-ce que mënuñu waxtaan pour que le correspondant de Walfadjri wala de Sud FM bi fa nekk. Mhm. information yi muy joxe mu mën koo joxe aussi bien pour waa Sud FM. que pour waa Walf mais yooyu ay waxtaan la te lu mën a nekk la. on a intérêt parce que ci la ñuy gën a doole. te suñ ko deful on risque de disparaître. c'est vrai d'autant plus que ah, xam nga da nga doon wax lu am solo gën <laughs> a daaneel la ci lu am solo. gis nga nit moom boo boo ko bëggee defal publicité. Mm. Mm. Mm-hmm. waaw même lu mu mën a doon rek boo bëggee mu siiw fexeel ba yóbbu ko ci kaso bi. Mm. Mm-hmm. même bu fekkee kenn xamu ko woon des na ko xam. maanaam effet contraire waaw effet contraire mooy am. Mm-hmm. alors li ngeen wax nag ci sol li ma wax léegi solidarité du corps xam nga loolu. ñu baree bari mas naa ci waxtaan ak Ndiaye Dos. ci affaire yu demee nii quoi. mu ne ma gis nga Maodo tant que ñun du ñu taxaw di xool. Mhm. fi njëriñu presse bépp nekk ñu demandoo fa. Mhm. bu demee nag ba génn foofu nag kenn ku nekk def sa liggéey duñ dem. Mhm. te loolu dañ faa yegg tey c'est vrai que nag bu dee état bu mel a jël yoo xam ne xëy na c'est exclusif mu def ko noonu. li gën a wóor te gën a wóor te gën a wóor mooy li Moustapha Diop mi wax. am na ci ay tur ay turi rajo yoo xam ni ak ay turi bérébu yëglekaay yoo xam ne. seen tur la yàlla sotti bayre waaw mais ça gis nga bu da ngay jékki-jékki dem fenn ci benn marché Samba wala nga ne Walf Fadjri mais wala nga ne Walf FM nit ñi danañ danañ ko am nu ñu ko yëgee. nga ne Sud FM danañ ko am nu ñu ko yëgee. mais mën ngaa tudd beneen donte suñu naataango la mais du am nit ñi yëg loolu yàlla koy def. léegi nag ñooñu nag président de la république tey bu falu comme ni ko ma saa entretien loo xam ne te li tax entretien rajo privé yi am solo. Mm-hmm. mooy yi nga dul dégg lan lay wax. tout à fait mm-hmm. waaw yow li la gaa yi ragal wax lan lay laaj. tout à fait yi nga xëy na sax yëgoo ko woon. le président du mm-hmm. fii ci ak ba mu ñëwee Sud a mën xaw ma sax loolu rek am na ci dëkk bi. nga yooyu. Euh, donc mën naa mën tamit loolu lay ragal ñu laaj ko lu mu lu mu ragal a topp. mais loolu mooy njëriñam. loolu mooy njëriñam <laughs> bu keroogee nag léegi mu xool ñu ko wër. ndax ñu ngi ko def liggéey bi mu def. est li nar dal mag euh, affaire du ma ne ma di ko di ko nar a dal euh. gis nga man boobu étudiant la Abdoulatif Coulibaly mi moo a doon jàngal. Abdou Diouf dafa wax ci vers la fin de son règne. Abdou Diouf ne léegi chaque six mois. dina rencontrer tout la presse sénégalaise. Mm-hmm. Latif Coulibaly mi à l'époque moo ne ko c'est trop tard. Mm-hmm. waaw Abdou Diouf ay président Sénégal de. Hmm? mu boobu hmm. wees di wax euh, hmm. mais vingt ans yi mu def Sénégal. la mu wax musul wax lu ñu toll. a en vingt ans. parce que parce que fan fan ko yóbbu la. doy na waat léegi euh, gannaaw temps mat na sëkk mais lu mënta ñàkk faw mu am soose baal ko rek. dañ koy tënk nag oustaz dañuy junj Sidi Lamine. Sidi Lamine li xew tey Israël Palestine bu fi nee woon ba tey baatama nga ca kaw. Ah, euh, Moustapha nan nga gisee en résumé rek cette situation yi ñuy dund jamono yi. situation bi ñun ñëpp gisandoo. Mm-hmm. lu metti la ci jullit yi nga xam ne ñoo nekk foofu la ca Palestine. Mm-hmm. mais Nicolas fi ma ci bëgg a waxee parce que waxtu bi dafa gàtt. Mm-hmm. mooy gis nga Sénégalais yëpp wala boog jullit yëpp nañu yeew ubbi seen bët di xool. gis nga bu ñu toppee médias occidentaux yi hmm. danañ ñu présenter waa Palestine comme de bandes de terroristes hmm. ba bu defu ndaag ñun suñu bopp dañuy mujj am sympathie ci Israël dem jéppi waa Palestine hmm. parce que boo xoolee médias yi lan la ñuy wax temps yi dañ naa ñu le Hamas c'est une organisation de bandits de terroristes euh, ay jaaykatu drogue lañ ay trafiquants de cigarettes lañ euh, ils ne servent même pas la cause palestinienne pour loolu la ñuy jël pour justifier jum yi nga xam ne jum ci Maodo laa ko woon tamit <laughs> moom la ñuy sànni foofu la ca ca ca ca bande de Gaza. mais loolu absolument rien mënu ko justifier xoolal le président américain. Euh, bi mu demee euh, Israël démb. dafa wax ne moom dafa d' accord ak Israël. que ni hôpital boobu ñu sànni bomb ba lu mat quatre cent et quelques personnes faatu fa. waa euh, jihad islamique ñoom ñoo ko ah, sànni. mu rëcc leen dal foofu. mais c' est des histoires. et la presse occidentale yooyu la ñuy jël. di ko appuyer di ko appuyer ba ñun dañuy dem ba gëm ko moo tax on a intérêt à les yeux. Hmm. xam ne. le peuple palestinien est agressé mm. et que képp waxuma jullit de mm. mais képp koo xam ne c'est tu es un défenseur des droits humains mm. war nga jóg dénoncer ko loolu tout à merci beaucoup def naa mat na sëkk ah. merci beaucoup en tout cas ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax lu neex du doy <laughs> woykat ba waxoon na ko euh, on le refera quand vous ah ben oui avec avec grand plaisir avec grand plaisir merci beaucoup encore une fois ci wuy si bi Moustapha Diop euh, yu bëri ñu ngi manifester seen contentement ah yi ils hmm. sont très nombreux à réagir et apprécier sa teew fii ci Sud FM ci ndekki li am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax ñu ngi sant bu baax une fois de plus di gërëm El Hadj Malick Ndiaye euh, donte bëggul ma koy remercier mais moi je vais le faire quand même je te remercie c'est su le Ndiaye qui gâche tout mais autrement euh, tu es une personne extraordinaire merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye de la rédaction centrale Red Chef ñu ngi koy bëggee ainsi que euh, rédaction centrale euh, euh, maa ngi ne di bëggee bu baax a baax baax il ah <laughs> super. voilà fi ñu accès baax na. Euh, lii Moustapha yaa ko moom. macha allah Moustapha. Euh, mburu bi daa jëm ci kii yokku ne nañ. ñu jàpp ci ñu jàpp ne fonde rek. <laughs> baa ngi nii. Euh, beñe dugub ak yëpp loolu daal suñu cosaan. nañ ci nañ ci mooy tudd nga ma bëgg nag beñe dugub. beñe dugub de ah, ah jaana. Ah, jaana <laughs> waaw leen ma ñaan Moustapha du leen ci may. voilà pour muy clair oustaz bëgg nañ. maa ci équipe digitale bi ma gunge saa équipe mm. technique merci Socé merci à vous de nous avoir suivis. c'est mm. toujours un plaisir pour moi.